mais est-ce que athlétisme bi ne amul nekkul victime ci. Euh, euh, nekkul victime par rapport ak football bi. par exemple du du euh, athlétisme. yaa ngi wax état ba ñu ngi fi ñuy gouver dernier gouvernement bi gis nañu ñu fusionné mhm. ministère ministère du sport ak ak ministre de la culture. non kooku loolu loolu beneen affaire la. waaw mais loolu est-ce que du ra du du kiiwal affaire yi wala. beneen affaire. du ko ralentir ils n'ont qu'à le budget nécessaire. Mhm. le budget nécessaire concernant le le le sport la jeunesse et la culture. mais mais moi j'ai j'ai l'impression que par exemple état Sénégal nu mu gisee sport sport moom égal football quoi. non non non c'est que dañ ko jël loisir. Mhm. loisir. tu quittes euh, chez toi. pour aller faire du loisir. nga dem infrastructure boo xam ne amul lampe. tu viens tu t'entraînes de 18h à 19h mu lëndëm nga ñibbi. après on te met dans l'équipe du Sénégal nga bëgg dem championnat du monde bëgg a dem championnat d'Afrique koy gagné. kan kenn tu rencontres les Marocains les Égyptiens les Algériens ñooñu. dañu am ay centre de perfectionnement yoo xam ne dañuy regrouper athlètes yi matin midi soir di leen fay per diem par jour ñuy jàngi école ñu leen di defal loo xam ne bu ëllëgee bu ñu jàppee si nag ñun en carrosse dañu daan dóor égyptiens yi ak judo. ba ñuy bëgg a dañ leen daan door ba ñuy bëgg a dee mais dañuy dañuy dañu viser xool li ñuy def ñun. Mhm. ñu def loolu yokk ko. tout à fait léegi ils sont les meilleurs au monde. les égyptiens en karaté. Mhm. championnat du monde bu ñu dem ay quatre 5 médailles d'or la am ñun on a près de 8 médailles au niveau mondial yoo xam ne 2000 2000 2004 la ñu gëj am. médaille mais on ne manque pas de potentiel justement. potentiel bi mu ngi fi. accompagnement bi moo des. je vais donner un exemple sur le karaté. Mhm. Serigne Mbacké euh, Seck. Mhm. def naa ci reportage bi mu ko génnee à la télé tubaab bi bu ko gisee dañ def nii. ndax lan dañ kii moo ñu gagné xam nga fu muy mm. benn tali gis nga si école bi dañ leen abri benn esplanade euh, gis nga euh, sijaada euh, yi nekk si mosquée yu gudd mm. moom lañuy ñuy lal di si entraîné taaf taaf taaf taaf si kekkali di gaañu di dóorante mais quand j'ai demandé à Serigne Mbacké il m'a dit il nous faut des moyens ma ne ko tu as des moyens. ma ne ko moyen bi moo tax nga gagné tubaab yi conditions yu métti yii moo tax nga dóor tubaab yi parce que ñoom dañuy nekk dans le confort mm-hmm. yow nga nekk dans le fu métti désarroi